waaw ouais, mais en attendant euh, yéen a ngi ci processus collecte de de, de parrainage mais mais mais les fronts ne manquent pas vous avez vu un peu le feuilleton euh, DGE euh, Cour suprême euh, euh, tribunal de grande instance de de de de de de Ziguinchor agent judiciaire de l'État ça c'est une question de procédure électorale et que peut-être que front yu mel noonu aussi mën na peser de tout son poids. Euh, pour éviter ëmb yu yu yu mel noonu. xam nga gis nga man expérience bi ma am 2019 dañ defoon c cinq après le parrainages on se réunissait régulièrement hmm? pratiquement chaque deux trois jours mais dañ jékki-jékki rek <laughs> mu tas ñi commencé discuter ak Idrissa Seck ñu discuter ak Ousmane Sonko ñu discuter ak Issa Sall affaire bi tas. c cinq amatul xam nga donc euh, de expérience personnelle je pense que tey jii nii munoo fexe ba ñu nekk ci parenage bi seen yitte yëpp mooy nañu jàll parrainage ñu ñu yaakaar ne jàll nañu ñu ngi commencer négocier pour créer ay front pour attirer le maximum de candidats autour d'eux mais tant que <laughs> résultat parenage yi génnul ñu bëri tamit dañuy toog di seetaan. mais mais xam nga luy problème bi. xam nga fi ma bëgg a waxee pourquoi vous êtes absent. Euh, ah, ah, vous étiez absent de de euh, ngeen mettre en place avec Abdourahmane Diouf euh, juge Dème euh, Cheikh Omar Sy une coalition c'était c'était bien euh, voilà bon ñu ne Yewwi passé na. après bi bi c'est une organisation quand même inclusive j'ai vu beaucoup de têtes beaucoup de gens de. de de l'opposition société civile yu ci yu ci yu ci nekk pourquoi pour pourquoi vous êtes distant euh, des organisations de de de de l'opposition alors je, je, point par point absent de Yewwi je pense que l'histoire nous a donné raison bu ñu gisee lu yi mujje assemblée nationale ak nu ñu mujjee am déet dama jàpp ni ñu loolu la ñu waxoon ñu mën a ànd ñu war a mën a ànd ñooy ànd du ñu bëgg gagner élection kese ànd après nag mun pour sax gere pays bi mu nekk ay xuloog xiroog ngaayoo man dañ jàppoon ni intercoalition wàllu yeew yi intercoalition contre nature la la preuve tey da ngay dégg li ñu daan wax ñun ak li nga xam ne ñoom xamoon nañ ko seen biir ñu koy wax ni tey publiquement dégg nga mon ami Abba Mbaye sorti l'autre jour pour diir que amul lu ñu waxul ci aar Sénégal fekk na écoute tout le monde lui a envoyé un volet de bois vert <laughs> am déet mais moom ba mu nekkee ci Yewwi xamoon na ko qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit d'ailleurs dañu yegg si assemblée nationale rek waaw wàllu toogee na la waaw yeewu toogee na la ñu am seen trois candidats trois candidats pour un poste de président de l'Assemblée nationale ça veut dire que ils ont donné la présidence de l'Assemblée nationale d'office à Benno Bokk Yaakaar donc il faut que tamit nit ñi ñu nangul ñu ni war nañu mën a am position ne li fii nekkuñu ci parce que man du ma bind téere wax ci li ma ci wax ci régime libéral bi dégguma benn yoon fu ñu defee mea culpa dégguma benn yoon fu ñu delloo li ñu li ñu yàqal askan bi ma ne damay ànd ak ñoom loolu il faut ñu nangu ko mooy parce que dans la vie mënuloo mënuloo envisager une alliance avec le PDS électoral laa wax une alliance électorale électorale avec le PDS électorale eh, jàpp nga ne P le PDS ne s'est pas absous. on va pas faire le, le, le le procès du PDS ici je dis je ne peux pas faire une alliance électorale. et ñu ko essayé woon ils se sont retrouvés à dire que on a eu tort de le faire parce que on a dû s'asseoir sur nos propres principes. Euh, on était dans art. Hmm. initiateur membre fondateur de AAR ba tey AAR bu ñu bu ñu sañoon ñun AAR day wéy on tout fait pour que AAR continue moi je député de AAR. AAR sëy bi daa tas pour incompatibilité d'humeur. <laughs> peu importe de toute ñun. on a tout fait d'humeur sëy ba tas. yow peut-être da amoon say espion ci biir wala. <laughs> da nga da nga kii ci biir <laughs> mais doo xam doo xam lu tax art existe toujours formellement am na ku ci am na ñu ci retiré wu. Abdourahmane Diouf moom il s'en est lavé les mains. waaw pour moom. bu ñu sañoon <laughs> bu ñu sañoon mbir mi continuer am déet on était dans le CRD aussi donc gis ku nekk ak say expérience ak say ak say mais l'essentiel est mais fit quand même c'est différent. c'est une plateforme pour euh, surveiller le processus électoral mais vous êtes concerné parce que candidat nga Thierno. surveiller ko processus électoral bi. Euh, alors dañ dañu la woowul. moo tax damuloo d'abord woowuñu ma wala daf la intéressé wul du tout. non dama la ne d'abord dañ ma woowul. waaw. luñ ma woowul nag am naa sama fulla gu doy pour bañ a bokk ci bu doon nag affaire Sénégal la loo xam ne c'est extrêmement urgent naa dem jël sama bâton de parrainage dem ci mais su dee affaire électoral fii ñu toll nii qu'est-ce que ça si fii léegi parrainage pour yow c'est une idée incongrue defal naa ko dama lay laaj question rek fi fii léegi élection yi lan lay signifier concrètement fii léegi bi lan lay signifier concrètement wax ma mais wax naa la sànq am na un recul judiciaire politico judiciaire bu am concernant le le retrait ou, ou, ou la réinscription de de de Ousmane de Ousmane Sonko ministère ah donc da ma bëgg wax ne dañu créer Yewwi dañu recréer Yewwi parce que non non dama ne non li concerne Ousmane Sonko mën na concerner keneen da nga ma bëgg a wax ne dañu recréer Yewwi non waxuma recréer dama ne am na déjà am na non non euh, dama ne am na déjà benn problème bu tegu c'est-à-dire ministre euh, Ousmane Sonko condamné par contumace ministère de la justice qui écrit au ministère de l'intérieur pour demander son retrait des listes DG e appliquer la mesure les avocats de Ousmane Sonko euh, attaquaient la la la la la la la mesure au niveau euh, de de de Ziguinchor juge bi mu ne la décision de la DG elle est illégale nañu ko dugalaat agence judiciaire de l'État interjeté appel ñu dem. Euh, cour cour cour ñu dem ñu dem cour suprême. on en est là ça un cas d'école. léegi euh, wax naa ci la ma ci waroon wax. lan nga ci wax. wax naa ci lan moo ci sa gis-gis. la veille la veille jugement boobu. bu am Ziguinchor maa ngi woon ci seen benn naataango seen TV pour ne pas le ma ne ko bu fekkee ne wax nañu trois dañ ko war a am DGE amul benn trois ren effacé ko parce que DGE buy effacé si day war a sukkandiku ci décision de justice te doo ma ni tëj nit këram ci condition yoo xam ne du justice moo ko fa tëj du yooyu yëpp moo ko fa tëj nga xam fu mu nekk ne ba pare xaw ma fu mu nekk di ko àtte loolu laa doon wax sànq état bu dee day foowee droit ça lui retombe café droit ça lui retombe ba mu amee it nee naa man lii bettu ma maintenant mu ngi dem cour suprême bu seetaan ñu dem cour suprême gars yi ñu ngi def voie de recours léegi lan la gars yi woote leneen lu fit woote leneen lu weesu ci loolu lan lañ ciy def ay déclaration bu ñu ma indilee déclaration naa signé <laughs> jeex na mais quant boo ma boolewul ci mbir te gisuma fii léegi élection xam nga affaire bi dafa war a très clair. donc yow ni nga waxee nii bu ñu la woowoon defal na doo dem. non non dama dama dañ ma woowul déjà. donc je waaw waa mais ni ngay waxee nii yow jugé woo le moment de création. boo ma bàyyee ma dem ba fond dinaa la wax li ma li ma wax te dama d'abord woowuñu ma donc je me pose même pas la question buñ ma woowoon ak buñ ma woowul woowuñu ma benn. am na nag ku ne woo nañu ñëpp amaana ñëpp ñooñu man seen domaine de définition comme on dit en mathématique c'est ñëpp là quel que soit politique man bokk ma ci bon benn ñaar dama ni fii ñu jëm nii <laughs> moi j'ai une expérience concrète def nañ fi ay front wàcc ci terrain bi pour xeex parenage wàcc ci terrain bi def ay front yu yaatu gis nga ñu wàccoon ci terrain bi ak ñu ñi woon ci biir di wax nañu war a wàcc yaa a une une grande disparité man xam naa kiw politik sénégalais la muy def ba ñuy jàpp Thierno Boko man Omar Sarr et cetera ñu bëri boobu dem nañ seen kër tooki ñun ñu dem fanaan poste donc bu dee bu dee fileeg élection processus électoral bi fileeg élection li fi des mooy parrainage ala kulli al faw nga jaar parrainage ñun ñu ngi liggéey bu doon opposition bi yëpp dañu ànd fit ak ñeneen ñu cohérent entre ñun du ñu nee ñenn ci opposition bi nee nañu nañu retenir parenage il faut que aussi qu'on soit sérieux entre nous comprendre nga ñu ngi ñun wut parrainage bu parrainage bi weesoo am nañu yaakaar dañuy jàll sori nañ ci lool te suñuy mbir newul ci ay clé mais <laughs> leer <laughs> newul ci ay clé ku ko jéem a kii tamit di nga di nga bëri ay pexe de pour mun ko jël <laughs> ah. bu parrainage bi jàllee foofu moom mooy conseil constitutionnel moom man kat voilà na ma yàlla voilà mu ngi noonu daal dinañ leen jox loo xam ne ba ñuy dem élection législative ñun liggéey ba ñu defoon ba mu wóor ñu ni bu ñu dee woon déposé tamit euh, motal nañu teg nañ lépp ci yoon après jësal see parce que euh, jàpp nañu une y a une part de de de de de de, de, de l'autorité et garde de d'aller